asalaamaaleykum waa Touba waa Sénégal parti Issa Sall parti de la paix di nuyu femme développement di nuyu dox jàmm di nuyu politique et développement bi nga xam ne moo jur lii tey soxna Fall dëkk Kër Baylaat doon gay nag Kër Baylaat waa woote jàmm rek ndax ku xam ne sëñ Muntaxa ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu fanam wi mel niw doj mu woote jàmm ci réew mi kon defe naa ne ñun jigéen ñi waruñu des ginnaaw sunu borom dajale ñu ak kilifa gu ñuy wax Issa Sall ku ne xam na ne dafa weex tàll looloo tax ñu sol balan a ah, mu am ci man confiance am ci man am ci Ibrahima mi confiance woo ma ma wax ak moom mu ne ma ku la bàyyi xel laa président Macky Sall mii ne ci réew mi sax dalaa bàyyi xel man woo nañ ma tegal ma ay million ma romb ko fa ndax Sénégal ma ñor kon bu boobaa xaalis boobee laay gis gisuma leneen te dafa am nu may ànd nit muy dignité muy ngor muy fulla muy fayda man loolu lay ànd ak nit te don bi ma yàlla jox duma ci jay nit koro bi ma toogee gisaa Issa Sall mu wax ma li mu soxla ci senegal ci laa ne ko yow laa doon seet gis naa la ànd ak moom nag mu am fu ñu teg ndax nit looy ànd ànd ak moom na la yëg bu la xasee yëg rek li ci des lépp amatu solo dem ci Macky Sall bii korog bi ma ko woowee dama ne ko def na ma sama yow laa xalaat na laa lay wuyoo téléphone ndax xam naa ne da nga tàng ndax est-ce que dem ci Macky Sall bi di ma ci wax dara man ko du ma la wax dara man parti de la paix damaa jënd kart nga jënd carte ëpple woo ma ci dara maag yow a yem képp ci parti de la paix képp ku ci jënd carte parti bi sama parti la te damay fas yéene képp koo xam ne jaay nga carte muy bloc élection maire yii di ñëw ak élection conseil département bi samay samay nit bokk ci conseil yi ba bu ñuy defati ñu si kenn du seet koroog bi ma ko waxee loolu mu ne ma soxna Fall fépp fu saw nekk nit nekk fexeel mu jaay ci carte yi bu élection jotee laajuma la ko soomaa lay jox caution ñoom ñëpp ñu dem liggéey liggéeyal seen ma ne ko lenn rek laa soxla Issa Ibrahima ke mii dëkk dala ngaabu jàppale ku ne ci àddina ma ànd moom ñu ne ànduma ak moom ndax politique dama ànd ak moom ndax intérêt damaa bëgg loo may defal man fexeel ba Ibrahima mii jël mairie dala ngaabu man loolu laa gën a soxla ci sama àdduna soo ko xasee am jeex mu ne ma soxla faal mu ne ma Ibrahima a ngi toog ñeneen na ngi toog ay kilifa mu ne ma soxna Fall ba mu woo ma ñetti yoon ba mu wuyu moom na ma dama la bàyyi xel demal nga liggéeyi man maa lay jàppale ak ku topp ci yow. kon nag parti de la paix defe naa ne dem ci Macky Sall ak toog ci Macky Sall Issa Sall moo dem ci Macky sàll parti de la paix dafay toog ndax sunu parti la. moom dafay liggéey ndax Sénégal. ni ñuy ànd ak Issa Sall ah loolu yomb na. ndax euh, ñun ñu ngi liggéey avant lii di am mhm. te xam nañ ci dara mhm. yaakaar naa ne su demee ci Macky Sall defe naa ne liggéey bi day gën a yomb yokku cere doolu ñeex ndax damaa toog na ko Issa damaa dégg ñu ne parti cere ak soow carti mburu ak soow mbaa doo doon suukar si mu ree te li ma ko doon wax moom xam na ko ndax tekk ji jaaxal na ma te ku ne tekk ci moment yu mel nii yëngutoo def dara am nga foo jëm man nangul ko nag li mu doon ndax man mii tey bu ma Macky Sall woowoon damay demaa ah samay yëf ak sama mii tama ñor kon nag moom su demee ne senegal moo ko ñor dafay liggéeyal Sénégal dañ koy bàyyi mu dem liggéeyali senegal du tee ñun suñu parti dafay toog waaw ndax xam nga jigéen mooy senegal ndax jigéen mooy yaay xale mooy mag ëllëg ndax xamuñu tey bu ëllëgee xale yooyu moo jàppale kan moo ciy doon président na Macky Sall dama sonn maa jàppale ci ay financement ma dem liggéeyi ñun jigéen ñi xamuñu kan la ci sunuy doom war a nekk président bu ëllëgee ñun jigéen ñooñu sunuy doom dinañ taxaw ne ah Macky Sall kat jëloon naa ci financement mi kon fayal bor bi ndax Macky Sall defaloon na ko kon li mu war def moom Macky Sall muy dooleel xale yi dooleel jigéen ñi dooleel mag ñi te man conseil bi ma koy jox boo xam ne leer na ma ne moom su ko doxee dina am li mu bëgg muy wàññi dund bi sénégalais xamuñu xiif xamuñu mar xamuñu rafle xam nga lañu bëgg muy jàmm wàññi dund na ko makki Sall def lum nu mën a defal ci àddina te wàññiwu dund bi day mel ni deful dara deful dara loolu kese la amul leneen auzu billahi mina seytaani gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér ak mboolem kilifa diine yi ne ci Sénégal gépp ndax seen yàgg fi mooy suñu jàmm seen yàgg fi mooy suñu tawféex seen yàgg fi kenn ku ne xam na ne mooy avancement Sénégal ndax suñu patrimoine ci réew mi mooy mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo tabax réew mi tey nag dañu woote woon fii ci Touba Ndamatu mu doon woote bu am solo woote bu ñu mës woote woote bi moo ci gën a dal suñum xel dafa doon woote boo xamante ne tey woote jàmm la tey bu ngeen gisee banderole yii ne suñu gannaaw en 2019 bi ñu génnee ci ay élection dama ko ànd ay jigéen ànd ay ndaw ànd ay mag ay kilifa ñu taxawal benn mouvement bu tudd Sénégal 2024 politique et développement et social gaynde kër baylaat comme ni mu ko waxee léegi soxna Fall ñu créé femme développement nga xam ne daj na réew mi ñu créé dox jàmm création yooyu yëpp nag kero bi nga xamante ne tey façon leader bu ne nuyu nañu te kenn ku ne gis na ne politique gu Sénégal ba ñu xamoon dafa yàqu politique bu njëkk doonutoon métier sport bu njëkk doonutoon métier lenn lu ci ne tabax sa réew la woon ñu dem ba ay intérêt dugg ci ñu dem ba ay xastante dugg ci ñu dem ba ay yàqu-yàqu dugg ci ñu dem bay waaj a taal réew mi te ñun ba ñuy copte nag ne mouvement Sénégal 2024 xam nañ ne 2024 tey jii li ko mën a defar rek mooy jàmm am jàmm jooju nag moo waral ñu woote tey Touba di ko sargale nag kenn suñu yaakaar tey ak ëllëg muy sëñ taxa ndax kenn ku ne xam na ne lu dul jàmm rek jàmm ko gën yàlla nag dajale ñu ak professeur Issa Sall ci weer la waxtaan ak moom mu taxawal parti de la paix le 17 9 mois 2020 la ko taxawal kon liir la kon liir la bu judduwaale ak ay bëñ judduwaale ak leer judduwaale ak jàmm <laughs> loolu nag bu fekkee ne am na te ñun suñ jëm bopp dañu jàpp ne kero ba ñuy taxawal suñu kuréel bi Issa Sall dafa yónni nit suñu biir wala mu nekk suñu biir ci la ñu wooyee maag euh, présidente Soxna Fall mu tegal ñu li nga xamante ne tey mooy statut parti bi parti bu yàqu fii ci Sénégal rek dafa am lu ko yàq am na ñu ko wax fii dans le département Mbacké kenn ku ne xam na kan mooy Ibrahima Ka yàgg naa puus ay nit ñuy jàll déedéet puusuma leen de yàlla moo leen puus ndax tey jii fi mu toll nii adduna boo doonee jullit lépp loo xam ne tey taxaw na jiital ci subhaanahu wa taala mooy def mooy dindi mooy rey mooy dekkal bi mbir moom yëpp amee tey jii fi mu toll nii ñun dañ ko def fierté total ñu taxawal parti bi mu jox ñu 3000 cartes ci ay période yoo xamante ne tey jàmbaar joo ko joxoon ne ko demal séddale cartes yi problème naa am 3000 cartes yooyu ci une semaine lañ ko séddale Touba ak li ko wër. mu doon kon lu rëy yàlla nag defal ñu ci xar baax ndax ñii nga gis tey ji ñu nekk ci sama gannaaw ak jigéen ñii toog kenn ku ci ne responsable nga fa nga ne bu ñu woote woon mbooloo du xaj fii waaye comme dañu ne ci période yoo xamante ne dañ ne bu ñu woote mbooloo moo waral ñu woote ci kër gi defoon nañ ko Mbàkke muy assemblée général boo xamante ne tey benn la woon te ba ñuy copte booba dañu woon pays bépp ci wàllu liggéey comme ni ko sama doom bi waxee kon bu ñu dajee ak nag koo xam ne liggéeykat la muy professeur Issa Sall ñu taxawal parti de la paix parti bu yàqu nag la ko yàq mooy gole di bay baa bi du dunde te suñu statut parti dafa dàq loolu donte ne doom joo jur la lu mu liggéeyul rek du ko ci góobe loo ci góobiwul rek doo ko ci gar mu doon loo xamante ne tey Sénégal ñu bari bëggatuñoo def politique ndax wor yi fasu naaru góor boo ko amee da koy wutal gawar waaye boo demee fële wutal ko tubaab boo xam ne mus gis muus nga warloo ko fas ci jël rek lañ dëkk te loolu mooy li nga xam ne moo yàq Sénégal donte ne tout tànk bi nga xam ne seeta yaa ko jur amoo droit forcé ko ne ko tey nga bokk ci parti bi professeur Issa sàll nag ñu ngi wax ne dem na ci Macky Sall loolu terme la boo xamante ne tey ñi koy wax mooy ñi nga xam ne tey jii ci aw ay rek la ñuy dund kii dund ci ay nag saa yu ay ñëwee rek day regg waaye saa yi ay demee rek day xiif. yéen dem gi nu ko jàngatee. ñun dem gi ko jàngatee dañ ci am fierté bi biñ ci am président woowu ko en tant que chef de parti ndax parti boo xam dafa judd dër tëralaguñu dara. kon Macky Sall sukkandiku foofu pour woo ki nga xamante ne tey mooy Issa Sall. message bi ñuy lancé lu yomb la. ndax kenn ku ne xam na ne Sénégal dañu jàppoon ne léegi ni Sénégal def na dóom mais nag bi président xamee ne am na ñu mbokkal réew muy kilifa diine yi mu associé leen ci moo waral jëf ji sëñ Mountakha jëf. Mhm. la yóbbu sëñ Mountakha mu jëf loolu moo yóbbu Issa Sall pour mu dem ci wetu président liggéeyal sénégalais mu doon loo xamante ne tey xam na ne tey ji am réew ay nit koy defar du nit ki moo koy defar professeur doon boroom xam-xam doon koo xam ne réew mi daf koo soxla ci côté informatique. réew mi daf ko soxla ci côté xam-xam tey jii mboolem ñi nga xam ne dañoo wax ne dañ leen a boucler pour ñu dem ci président Issa la bokkut ci ñooñu. mën na indi solution ndax solution bi mooy lan tey jii déclaration bi mu def ci ñaar ci at mi def na fi ñaari yoon déclaration kero bi réew mi bëgg a takk ñi àndoon nag président ci intérêt ñoom ñëpp dañoo dem Mourtani président génn def déclaration boo xamante ne tey sénégalais yi la doon waxal surtout la jeunesse. ndax dañoo wax ne boo bëggee tabax sa réew ëllëg defaral say ndaw say ndaw bu baaxee rek ëllëgu réew ma dina baax te jigéen dafa am solo ci société bi boo defaree benn jigéen defal nga baay boo defaree benn jigéen defal nga doom te jigéen mooy lépp tey jii bu àdduna taxawee rek jigéen la ndax ku fi baax rek jigéen la kon la may dénk président discours am bii mu def mu doon discours bu pertinant réew mépp nee nañ est-ce que Macky Sall mi Macky Sall ma wan ma ne leen aha ndax gars yi bu fekkee dañ la daan jox ndox nga di ko naan bu ñu la joxee ndox moo xam ne seen tey mu saf suukar la war ngaa wax ne ndox mi saf na suukar kon say war naa neex dañ koo muuroon nag ba xamut li nga xam ne seen tey moo xew ndax tey jii fi mu toll nii un conseil président dafa war a wax président li nga xam ne seen tey moo xew réew mi sonn nañ te li waral ñu sonn tubéy paate yem ci bolle chef bii ñu defoon ci Covid bi am na ñoo xam ne jotuñu ci bourse familiale yi am na ñoo xam ne jotuñu ci tey jii am réew nag dafa doon loo xam ne see waree su ko tey fi mu toll nii politique boo gisee kenn bëggatu ko def da ngay politique teg sa yaay ci wet gi teg sa baay ci wet gi loolu nag jàpp naa ne fi mu toll ni Macky Sall jeexal na ko ndax ni mu ko jeexalee bu fekkoon ne intérêt la Issa Sall falu ko Issa Sall du nitam kon bu ko wooyee ci wetam pour war ko liggéey loo pour sénégalais la